jën dafa am lu doy waar lu xew muy euh, Dubaï porte à porte yi Dubaï porte à porte yi boo koy dégg euh, mooy ñiy dem Dubaï am fa contrat boo xamante ne porte à mooy douche portable porta porti mooy douche portable maanaam dafa am ñoo xamante ne tey jii dañ leen a jënd ni ma ko mën a waxee wala dañoo signé contrat boo xamante ne di ay jigéen di ay influenceur wala influenceuse ba d'ailleurs damay damay damay taxaw ci baat boobu lan mooy influenceur Sénégal Sénégal war nañu taxaw di jàngat baatu influenceur lan la xam nga dañ naan diw influenceur la mais influ influenceur mooy ki nga xamante ne tey jii gis nañ ko ci réseaux sociaux yi mu am buzz maanaam kuy def buzz soit muy ku nekk tiktokeuse wala moo ko koo xamante ne tey jii daanaka Miss Sénégal la ngi def Miss. wala animatrice télé bu siiw wala wala wala snappeurs yi ñooñu ñooñu ñooy influenceur parce que tout le temps dañuy nekk ci milieu boo xamante ne ñëpp dañ leen di xam ñooñu nag daf ci bëri ñoo xamante ne tey jii euh, ñu ngi jaabante Dubaï di dem di dikk y'a 43 fii yoo xamante ne Sénégal la ñu jut lañu lañu la ñu bokk ci mbir moomu ñuy wax 43 lañu waaw am na ay tiktokeuses hmm, am na aussi ñi nga xamante ne ay Miss Sénégal lañu. am na aussi ñaari animateur yoo xam ne animatrice yoo xamante ne ci télé lañu nekk ñun nag tooguñ fa di tudd tur parce que boo tuddee tur da ngay tooñ magum jëmm euh, majeur et vacciné bu tànn dem Dubaï dafa def ñaaw ñaawteef yooyu kooku moom la concerné mais dafa am fi ma njëkk fi ma njëkk tàmbale euh, gis nga jën dafa am lu am solo loo xamante ne tey ji war nañ ko waxtaanee dafa am ñoo xamante ne ay victime lañu gis nga jigéen dafa war a am dafa war a sàmm boppam alalu àdduna warul jaral jigéen tey ji mu jóge Sénégal ba Dubaï pour lan pour di fa subir ay affaires yu doy waar am na jigéen yoo xamante ne tey ji dañ leen signaloo contrat contrat bi ñu leen signaloo mooy boo demee Dubaï contrat bi nga fa am mooy da ngay liggéey mindaan jànq nga fay liggéey ñu lay fay par weer contrat boobu nga ko ko jox muy un démarcheur ñu bëri xam nañ li may wax ay démarcheurs sénégalais ñoo nekk fii di démarcher ay jigéen pour yóbbu leen Dubaï wala Arabie Saoudite ñu fay liggéey mais bi liñ li proposé mooy liggéeyu jànq évidemment mais jéen li gën a neex ci loolu mooy li ngay signé fii ak contrat ba ngay ba nekk ba nekk foofu bokkul yow bi ngay jógee Sénégal ndeysaan sa yaay dalaa ñaanal bàyyi ñaanal la nga ne maa ngi dem Dubaï dama fa am contrat boo xamante ne damay liggéey liggéeyu jànq chaque weer nañ la fay 2 millions nga gis ko ci contrat bi ndeke yow contrat bii nga signé bokkul ak contrat ba naar ba kii fële fekk yow jigéen ñu bari tey ji ñu ngi foofu ñenn ñi Arabie Saoudite la ñu nekk ñenn ñi Dubaï la ñu nekk bi ñu ñëwee aussitôt bi ñu leen ñëwee dañ leen dugal ci benn néeg ñu bëri xam nga lu ñu leen def yéen ay prostituées lañ leen def parce que boo xasee ba dugg ci néeg yow ki la signal fii démarche bi daf laa jaay jaay la naar bi naar bi nag moom aussi ci contrat bi mu yor daf la daf laa jënd. léegi yow boo ñëwee yow da ngay jàpp ne da ñëw pour liggéey liggéey jànq nga ñëw mais ñoom dañ la jàppee jaam bëri na nit ñu ñuul ay xale jigéen yoo xam bi ñu tàggoo Arabie Saoudite ba léegi kenn tegaatu bët bëri na xale jigéen yoo xamante ne Adja bi ñu tàggoo aussi Dubaï kenn tegaatu leen bët seen mbokk yaa ngi jaaxle nekk ci njàqare nekk ci tiis xam nga lu tax c'est parce que ñoom dañ leen a jaay naar yi naar yi xam nga lu leen di def parce que lii confession la boo xamante ne benn xale bu jigéen moo ma ko def bu nekkoon Arabie Saoudite moom dafa fexe ba àbb téléphone woote xam nga lan lañ koy def maanaam naar dañ ko dugal ci benn néeg néeg boo xamante ne ku soxla day ñëw tëddee ci journée bi benn yoon lay lekk mbokk yi nañu téye suñu jigéen ñi fii ci réew mi xale bu jigéen boobu benn yoon lay lekk dans la journée nee na parfois fukki góor. danañ ko danañ ko tiim di ko tëddee xale yi sax ñi bëgg jàng sëy ci moom la ñuy jàngee sëy ba pare dañuy jël yat ko ko dóor man ni ku yor mala moo tax tey jii dëkk yooyu nga xamante ne souvent dëkku diine la ay mbir yu doy waar dafay am parce que jàppewuñ nit ku ñuul nit ñoom pour ñoom nit ku ñuul buñ ko gisee rek jaam la jigéen ñu bari nag yéen a ngi fàttaliku histoire mbayang mbayang euh, histoire bi demee noonu la femme bi ñu ko ñu ko tëj ci kaso bi femme bi onze coups de couteau la ko Mbaye ak jam lan moo tax mbay ak jam ko c' est parce que dafa maaroon c' est parce que dañ ko jàppee woon jaam c' parce que dañ ko jàppoon objet sexuel léegi problème mu Dubaay bii nag euh, pour ma ñëw ci vraiment dafa am dafa am loo xamante ne lu lu lu doy waar la affaire affaire Dubaay bi euh, foog ma joxe ci euh, information bi nga xamante ne nit ñi moom la ñu am mooy ñi nga xamante ne ñoo fa ñoo ñoo fa nekk. waaw parce que bëri tey jii ay jigéen ñoo xamante ne tey euh, ñu ngi dawal ay 4x4 fii ci réew mi ñu ngi ñu ngi dëkk ci appartement di fay cent mille par mois di ay influenceur fan lañ ko jëlee chaque semaine ñu tàggu ne maa ngi dem Dubai ah mais xam nga nag gis nga réew mi nañu waxante dëgg chaque semaine ñu ne la maa ngi dem Dubai mais lan la ñu ut Dubai bu ñëwee fii dawal oto bu rafet ñu naan gelu ministre ba c'est pas vrai du ay gelu ministre mais ñooñu. seen bopp li ñuy ut Dubaay ñëpp xam nañ ko lii rew porta à porte bii lu gën a garaaw la ñuy def euh, damay ñëw rek ci ci ci information yooyu fii Sénégal Sénégal am nañu 43 filles 43 filles yooyu bokk na ci 11 miss jigéen ñi 11 miss ak 14 tiktokeuses moo ñu ne ci tiktok bi 14 tiktokeuses ak ñoo xamante ne tey jii booy xool euh, ñaari animateur yoo xamante ne télé rajo lañ ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. gis naa kenn ku ciy wax mais moom du ma tudd turam ca la bokk am nañ information yi leer que ne moom mi génn ci réseaux yi di kaas moom ca ñooñu la bokk parce que chaque semaine mu tàggoo Dubaï chaque semaine mu ne maa ngi dem Dubaï maa ngi am lu mu fay def mais li mu fay def leer na xam nga alalu àdduna bu leen jaralee tey jii ma wax ne tey euh, dafa am ay ay ay ay ay ay ay groupe yoo xamante ne ñooy dem Dubaï ak lañ fay def bu njëkk bi mooy. dafa am jigéen ñoo xamante ne tey jii naar leen di fay xaalis bu bëri xaalis boobu li ñu ji di fay mooy dafa bokk ci euh, li nga xamante ne mooy ñoo xamante ne dañu dem uniquement hmm, pour ñoo ñu nañ dem ba chaque mois ñu ba chaque semaine ñu gagné dix million prostitution moo leen fa yóbbu prostitution boobu nag dafa am ñeneen ñoo xamante ne li ñu fay def muy zoophilie zoophilie mooy da ngay dem naar bi ne la man li ma intéressé mooy nga sëyeeg sama gëlëm bi nga sëyal sama xaj bi wala nga sëyeeg mala. loolu mooy zoophilie te am na sénégalaises yu jóge fii ak africaines yoo xamante ne fa la ñuy dem di sëyeeg mala yooyu naar bi di fay xaalis beneen bi mooy naar bi day séq ak yow li ñuy wax partouze partouze mooy euh, ngay ngay jigéen di sëy groupe ci par ci partouze boobu dafa bokk ci contrat bi nga xamante ne moom nga signé ak naar yi ñu nekk du Dubaï mooy yow am nga am nañ droit tey ji seq fukki góor seq la di yow te sëy yow bi maanaam fu ne lañ lay sëyee fu am pax rek dañ fay sëy ak yow ngeen baal ma ci kàddu gi damay day leeral maanaam fépp la ñuy sëy ak yow li gën a garaaw beneen bi ci topp mooy dañuy jël ay objet di ko dugal sa awra mais sañoo bañ da ngay nangu par force parce que contrat bi bi nga signé amoo droit bañ dara est-ce nga mais li gën a garaaw li gën a garaaw mooy loolu mooy ay service corporel dafa bokk ci contrat bi maanaam tey ji mën nañ laa jàpp jël ay yat di la dóoru dóor lay kurpañ ba sa kanam gi neewi parce que ñoom ay vices la ñu am pour sëyee la bu leen bu ñu amee envie duma la dañu lay dóori kurpañ dóor la maanaam yàq sa kanam waaw parce que am na ñoom tey jii booy sëy ñoom dañuy bëgg nga leen di xosi maanaam ay affaire sauvage daal xam nga mais yooyu tey jii mooy wane ne tey euh, am na ñu ko nangu am na ñu koy def am na ñuy indi xaalis boo xamante ne tey jii bu la waxee fi nga ko jëlee doo leen naw moo tax suñu mbokku jigéen ñi nañu def attention bu baax a baax gis jigéen buy dawal huit huit gis jigéen bu yor alal bu dul jeex nga di ko naw man de maa ngi dem Dubai Dubai laay dem de ah man de Dubai mooy sama nangam ñu tuddee ko ajaa Dubai da xam lu muy def Dubai képp ku am doom nag muy dem Dubai jamono ji téye ko parce que kaay xam xamal leen mbir am na Sénégalais ñuy jokkool yu nekk Dubai évidemment ñoom li ñuy wax mooy fii xaalis yomb fi Dubai boo bëggee xaalis dëkk bu tàng la bu metti la da koy liggéey. mais ñi fa dem tey jii bokk na ci révélation ay ay ay borom ñaari tur ay góor yoo xamante ne fii lañuy jóge jugee du ma tudd tur nag bokk ci benn corporation fii la ñu jugee dem Dubaï yéen seen mboroomi góor ni leen sëyee ay góor yu def zoophilie maanaam ay góor yu dem foofu ay xaj di leen tëddee maanaam mbirum góor jigéen lépp looy séntu ci bon Dubaï la ëppee kon nag gis nga message bi mooy jigéen ñi. Euh, dañ leen war a jàngal kan mooy soxna maam jaara Bousso jot nañu jàngal ñooñu ci école yi nag ma Adja Fatou jot nañu jàngal maanaam nit ñi kan mooy soxna maam jaara Bousso kan moom maam Faa Wade Wele kan moom maam Astu Jànxe valeur yooyu ñu am senegal ñu bàyyi ba tey ji ñi jóge bitim réew ñoo duñu pervertir loolu dara gën ko doy waar mais jën xam nga liñ naan li tëj wax ji mooy euh, bi may ñëw sànq ma Matar Gueye bu Jamra dañu waxtaan moom aussi mu jox ma ay révélation yu doy waar ci affaire Dubaay bii xam naa nañ ko yaatal ci li ci dëkk bi mais man bi ma Mame Matar di wax euh, révélation yi man dama dama téye sama gémmiñ naka la jigéen di nangoo bari na tey ji ay ñoo xamante ne influenceur lañ leen tuddee ci Afrique ñenn ñi dañoo dem ba xaru ay jigéen yoo xam dem nañ ba xaru ñenn ñi tàqali kook seen xel ñenn ñi dem ba amatuñu santé lan moo ko waral naka la jigéen naka la nit doomu aadama di nangoo tey jii ab nit ni yow di jonkan nga ŋaaŋ muy neefare sa gémmiñ xam nga dafa am lu doy waar man dama jàpp na tey jii bu fekkee alal jaral na nit ñi yenn yi war nañu xoolaat suñu bopp parce que lii moo gën a gis nga question bi yëngal na àdduna boo demee Côte d'Ivoire instant bi may wax ni Côte d'Ivoire coow lu rëy fa ñu ngi attaqué influenceurs yi ba kenn lañ ci invité ci plateau mu gedd boo demee Congo parce que ñoom bokk nañ ci ñi ëpp ay jigéen soixante-dix-huit filles yoo xamante ne fa lañ jóge boo demee boo demee ko Cameroun tey jii coowal Dubaay porte porte bii mooy seen problème parce que kenn mës ta gis lu mel noonu dama dama dama am euh, xol bu fees xol bu naqari ba ma gisee jigéen bu ñu solal te ñu xaj defal ko genn maanaam jàppee ko ab xaj buñ ko woowee day day daf day comme xaj day mbaw comme xaj ñu defal ko genn kooku tey jii xaj yi ñoo koy tëddee day def zoophilie jigéen ñi aussi buñ ko góor ñi buñ ko soxlaa dañ koy tëddee te nag li gën a garaaw mooy yéen ñi nga xamante yéen ay influenceurs yooyu da ngeen war a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax image yi génn kan moo ko génne c'est juste une question image yi génn kan moo ko génne parce que contrat yi contrat bi ngeen si ak naar yéen influenceurs yooyu tey jii mais contrat yooyu dafa bokk ci clause yi mooy lii xew Dubaï warul génn kenn waru ko filmer kenn waru ko génne kenn waru ko xam léegi image yooyu kan moo ko génne moo jox leen information bi naare ci boppam billaahi du ma ne naara bon waaye am na naar yu bon gis nga jën Euh, li gën a bon ñu koy def ci ay ay ay ay ay ay bassesse ci dëkku naari la ci ak ñama ko sañ a wax jéen naar yooyu tey jii ñooy chantage xale yu jigéen ñi gannaaw bañ leen booleeg xaj ñu sëy gannaaw bañ leen booleeg fukki góor yoo xamante ne ay masque la ñuy sol gannaaw bañ leen booleek nit ñu ŋaang ñu def ay ay ay doy waar seen biir gémmiñ ñu jël vidéo yi envoyé ko xale bu jigéen bi soit ngay tiktokos soit ngay une vedette ñu envoyé la ko ne la mois bi da ngay dagg ticket ñëw nangam ak nangam boo deful li ñu dugal video bi ci réseaux sociaux yi dégg ngeen yàggul xale bu jigéen bi nga xam dafa tëb étage ca Dubaï ba ñàkk ba kanam mais loolu moo ko waral Mame Matar Gueye euh, bi bi ñu waxtaanee ci ci révélation yi mu ne ma euh, maas loolu yàgg na ci àdduna fam loo xam ne yàgg na ci àdduna bi mais li gën a garaaw mooy loolu c'est des c'est à des fins mystiques maanaam dafa nekk loo xamante tey ji nit ki lii ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñooy dem ñuy saw seen gémmiñ wala ñuy dem ginnaaw kër seen gémmiñ ñuy ŋaang ñu ñu koy def seen gémmiñ loolu lu ci ëpp nee na ay mystique la parce que bañ nañ ko ba naar yooyu nga xamante ne ñoom ñooy jëf euh, Dubaay porte porte def xale jigéen ñi ay toilettes ay douche mais ñooñu maanaam ay sacrifice daf cay bokk bañ nañ ko bu ñuy bu ñu li ñuy naan maanaam dañuy naan laxatif laxatif mooy loo xamante ne boo ko naanee tey ji booy dem di def ginnaaw kër ci gémmiñu xale bu jigéen bi maanaam biir buy daw lay doon wala wala du doon loo xamante ne lu lu lu concentré lay doon loolu bëri na jigéen ñu bari ñoo xamante ne ñu fi jug biñ ci jugee dañu am problème mu santé ñenn ñi dañu am problème mu santé parce que mënu ma concevoir jéen naka la nit di nangoo ŋaang ñu koy def sa gémmiñ te nag loolu bokk na ci aussi mystique bi ñoo xamante ne sacrifice yu yu doy waar la ñuy def yoo xamante ne xale jigéen yooyu buñ fa jugee dañuy ñàkk seen xel dañuy tàggook seen xel ak ñoo xamante ne aussi dañ ci jëlee feebar yu doy waar ñu bëri dof nañu ñii ñu ngi hôpital ñeen ñenn ñi feebar nañu ñenn ñi aussi mëntuñoo nangu loolu ndax seen psychologie mënu koo nangu kon je pense que ne tey jii jën dafa am loo xamante ne bu dee information aussi nga yor ko doo ko mën a taxaw di ko wax ci télé wala wala ci lenn parce que jàpp naa ne magum jëmm gu responsable état mënu ci dara bu fekkoon Sénégal lañ ko defee état Sénégal day intervenir mais ay sénégalaises jigéen ñoo xamante ne tey jii ay influenceurs lañu dem fële ca Dubaï ñu signé leen ay contrat ñu nangu contrat yooyu signé ko di fa def prostitution di sëy ay xaj ah ñu leen di traité maltraité ñenn ñi def partout foofu ñenn ñi def leneen ak leneen ak leneen ñooñu ñoom la concerné mais damay ñëw aussi euh, ci li nga xamante ne jéen yaa ngi koy wax sànq ñu ngi koy wax waxtaanee sànq mooy jigéen ñi nga xamante ne tey euh, ñu ngi ñee seen seen seen seen mbokk seen yeneen mbokku mbokku jigéen ñi gis nga dafa loo xamante ne war nañ ci bàyyi xel mooy mooy mooy Sénégal euh, dañoo gis ne bari na jigéen ñu bari jamono ji ñu wax ak yéen seen seul rêve mooy dimbali seen waajur mu nekk ci réew mi jom jom moo leen animé maanaam ñu ngi bëgg tout le temps euh, fexe nu ñu jàppale seen seen i waajur wala nu ñu demee tukki. Hmm? parce que tukki aussi euh, nit ku ne am na droit sañ sañu dem tukki ne man fee laa gis ne su ma fa demee peut-être naa mën a jàppale samay wéjur naa mën a jàppale samay borom kër waaye dama bëgg liste boobu ñuy tukki nañ ci génne Dubaï jamono jii amul wéjur wuy toog wéjur wuy wax ak sa doom tey ji sa xel dem ci Dubaï nga di ko bàyyi muy tukki parce que li fa ëpp mooy prosti prostitution bi mooy que ça soit clandestine hôtel yi gën a cher hôtel yi gën a cher. boo demee fa ngay nekk lépp loo bëgg naar bi da la koy jëndal muy or muy muy muy muy ay takkaay muy ay muy muy luxe lépp loo bëgg da ko fay am jën am na ñuy gañe par mois deux cent cinquante million ban liggéey moo la mën a may Sénégal nga gagné deux cent cinquante millions par mois ban liggéey moo la ko mën a may mais léegi loolu tey jii euh, dafa am loo xamante ne état Sénégal ci boppam. mënul intervenir la ci Dubaï parce que bari na ay kilifa yu ñu tudd foofu aussi yoo xamante ni bu ñu bu ñu bëggee def seen mbir Dubaï lañ koy dem defe jee xam nga xam nga moo tax réew mi dafa toj Sénégal lañ ñaan bu doon caayoo ñor ko dagg na mais je pense que réew mi aussi fi ñu toll ci ñaaw te for nañ ko xool parce que ay kilifa ci boppam ay kilifa am ndombal tànk bu ñu bëggee dem caaxaane dubaay la ñuy dem bëri na benn xale bu jigéen bi fi defoon benn révélation ne kilifa gi wax chaque jour ñooy daje Dubaï. kon xam nañ ne tey jii ñii dem Dubaay du ñëpp nag parce que am na ñoo xamante ne ñu ngi dem Dubaay li leen fa yóbbu euh, Moustapha mooy liggéey mais la majeure partie yiy dem Dubaay ku ci bëgg a caaxaan Dubaay ngay dem kon nañu dellu suñuy valeur nañu dellu ci lu ñuy moom alalu àdduna warul jaral mukk mukk mukk mukk doomu aadama ba muy dugg ci loo xamante ne tey ji ëllëg deram dafay yàqu parce que vidéo yooyu bàyyi leen ci xel de vidéo yooyu ngeen def ak naar bi dégg naa benn xale bu jigéen mu génn di menacé naan euh, faalewo mag dund ma yooyu ak sama yoon nekku ci mais vidéo yooyu ngeen doon def ci appartement naar yi xam leen ni vidéo yëpp dañ leen filmé te ëllëg ci biir naar bi bu soxlawaatee da lay envoyé video boobu nga fekk si ko mu def la ko neex parce que bëri na ñoo xam te tey ji ay chantage lañ ciy jot ay menaces lañ ci jot ñu leen di ñu leen di napp ci lu bëri waaye li gën a am solo mooy nga xalaat say doom boo léegi est-ce que jigéen ñi ñu ngi xalaat tey ji Euh, wéyjur yu ñu bàyyi ca dëkk ba est-ce ñu ngi xalaat tey jii ñi nga xamante ne ñooy seen njaboot bu ëllëgee ñu génn la vidéo boo xamante ne war na ci nga doon sëy ak xaj ñu ëllëgee ñu génn la video boo xamante ne jigéen dañ koy teg ñu gis jigéen góor di saw sa gémmiñ wala góor di dem ginnaaw kër sa gémmiñ finalement je pose la question ban àdduna la ñu nekk ban monde la ñu nekk alalu àdduna est-ce que jar na lii jar na yenn yi kon affaire Dubaay Dubaay euh, Dubaay porti porti bii ñu wax sacrifice mi ngi ci vice mi ngi ci mais aussi torture mi ngi ci zoophilie mi ngi ci ak prostitution bu doy waar loolu nag tey jàpp naa ne état li mu ci mën a def donte mënul tere kenn dem Dubaay waaye ñii ñu tuddee influenceur Diène war nañu xool ñoo ñan Diène réew mi dafa neex de Sénégal Sénégal damay doon benn masse bopp taxaw génn ci réseaux sociaux bi saagay ndey mbaa ma wax lu ko neex mbaa ma wax lu kenn xamul waxi dof ñu ne masse bopp léegi influenceur la nit day taxaw ci ci ci ci ci réseaux sociaux ay cëram xaweeku wane li mu yor ñu ne influenceuse la nit day taxaw ñu ne animatrice la wala nanga la muy taxaw ci télé bi di wax n'importe quoi ñu ne mais kii influenceur la nit day taxaw li nan médiocrité tey jii bu ñu demee ba tey jii benn snapper tey jii nekk ci wetu président mooy snap mooy def lépp ñu tuddee ko un influenceur léegi imam bi du influenceur imam bi def xutba chaque àjjuma du influenceur ah journaliste bi nga xamante ne tout le temps mi ngi joxe information sëriñ si nga xamante ne tout le temps ñu ngi alerté société civile bi nga xamante ne jamono ju nekk ñu ngi taxaw di kaasal réew mi syndicaliste yi activiste yi